ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen ci seen bu gàtt décrypter bi Bassirou Gueye noonu fi procureur de la république def démb ngir nee na indi ay leeral ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr sortem bi nag dañ koy càmbar ci fond ak ci forme analyse de fon bi mooy won leen incohérence wax yu yarul maanaa yi mu jëbal te daan ci ñëw waaye li ñu gën a marqué d'abord te fa lañ koy dooree mooy la forme ni Bassirou Gueye présenté woo suñu kanam ne yee yaay daf ñuy naxtaan dafay jéem a dawloo suñu yaram. man sama yar yar biñ ma yar ak formation biñ ma jox mayuma nit nekk ci jafe-jafe ma ko ci yokkal dara. man procureur la ku am jafe-jafe rek yërëm naa même Bassirou Gueye bii fàtte xaju fi ki de dafa am yërmande ki de du yokkal kenn ay jafe-jafeem moo fekkoon en 2021 ab jigéen boo xam ni dafa am doom de manière prématurée muy Ndeye Khady Ndiaye xale bi nekk ci diggante dund ak dee soxla yaayam ci waxtu yooyu Bassirou Gueye woo waa section de recherche nee nañu dem jàppi ndaw si. bu ma ko waxee. man woo naa Seydou Bassirou Guèye le procureur de la République. pour mu hmm. informer ko le jëlul mu envoyé ko SMS préciser ko condition yi nga xamante ne aujourd'hui la la vie de la petite fille est en danger si elle n'est pas avec sa maman. ma wax ko ma naa ne mu ne ma rappel Bassirou Guèye nee na dalay jël ma rappelé ko mu jël ma ma expliqué ko li ma ko expliqué ma moom mu jàpp ne que ñoom li ñu bëgg mooy dañ koy placé garde à vue mu sukkandiku ci loolu dañ koy placé garde à vue. mais garde bi fan lañ ko teg. Euh, teguñu ko ci dara pour ma wax la te yàlla moo ñu tiim hmm. teguñu ko ci dara lépp li nga xamante ne ñu ngi ko koy bugg a tuumal moom xale bi def ko ce qui se passe en fait Papa Alé c'est que euh, moom dañu bugg moom mu revenir sur cette bi nga xamante ne def na ko ci presse bi euh, ñoom dañoo bëgg ndaw si déclaration yi mu waxoon mu dellu si waat woo nañu ko ci diggante bi man ba ma nekkee foofu. waaw proposé ay. soo changé version ko déggandoo en bi Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram defe ay seede daal di seetal Ousmane Sonko muy loo xam ne neexul woon waa nguur gi. Bassirou Gueye mii naan yaram ak formation am mayu ko mu fekk nit ko am jafe-jafe mu ko ci yokkal kooku moo santoon commandant Abdou Mbengue ne ko neel say élément ñu dem jàppi Ndeye Khady yi jigéen buy soog a matu te deful waxul section de recherche xamal ko état bi ndaw si toll moom Bassirou Gueye ne commandant Abdou Mbengue soxalu yërmande bi moo la sonal. c'était un samedi le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si ñu ko ah commandant la femme là. la a un enfant prématuré de sept mois kooku mënul dem de mu ne ma ah j'ai informé la procureur mais bu ma ko informé xam nga lan la ma wax def ma ni commandant yow sa xolu yurmaande bii moo la sonnal bi bu fekkee ne damay fen yal na ma yàlla toroxal procureur bi nekk commandant yow sa xolu yurmaande bi bu mu taw il faut plutôt faire appliquer tes principes de gendarme introduction la pour wol leen kan mooy Bassirou Gueye balaa dara di xew trafiquant de personnalité la maanaam dafay jibalu newul ci moom benn ñaar mën naa wax du dëgg te du xef du tiit du raf di la xool bët ak bët donc pour préparer leen psychologiquement yéen ñuy suivre ngeen xam ni narkat bu sérieux la ñu am ak affaire tay yi nee na enquête bi bi bi dossier Adji pare ba ñu tëj ko yóbbu gendarmerie dañoo def enquête ci seen biir ne nañ boobu moo wax ni sëriñ Bassirou Gueye moo soppilu enquête parce que rapport bii ñuy wax ni bu fekkee dëgg la laa wax de parce que man wóoruma rapport vraiment wóoruma. fii Serigne Bassirou Gueye ne rapportu gendarmerie bi ñuy coow te ci biir rapport boobu commandant Abdou Mbeng ne Bassirou Gueye moo ko santoon mu soppi PV d'audition bi ñoom capitaine Touré bi doon Bassirou Gueye ne wóoru ko rapport boobu sax am na. dara leeru ko ci kon ñu jàpp ni Bassirou Gueye jotul ci rapport boobu mësu koo liir bu mën a dëggal mbaa weddi li nekk ci biir waaye bi waxtaan bi neexee yaramam tàng lool ñu dawal quelques minutes. Ousmane Sonko na génne procès verbal bi enquête bi gendarmerie def na ko génne bu ko génnee di ngeen gis ni capitaine Touré moo accusé kilifaam weddi. liñ ci wax ni maa leen teg pression nee naa leen amul problème mais rapport boobu amul njëriñ waa lu tax du génn rapport bi lu tee Ousmane Sonko génne ko lan moo ci nëbbu am na koo xam ne Pape Alé Niang la tudd liir na rapport bi li ci ëpp liir na ko ba mu des xëy na bi mu ñëwee ci commandant Mbengue am na lu Mbengue wax lu ma setal loo xam ne liiralu ko. Bassirou Gueye mi ne woon sànq ne rapport d'enquête bi gendarmerie def seen biir wóoru ko ni sax am na dëgg la am déet ko ci après quelques minutes nee liir na rapport bi nangu na itam ni moo doon teg pression gendarme yi pour ñu gaaw pamte pamte dossier bi waaye lu jëm ci wàllum soppi PV nee na liñ ko ciy tuumaal ci biir rapport bi amul. donc lii beneen biir la bu ñu jàpp ci déclaration Serigne Bassirou géey bi mooy nit la ko xam ni dafay wax lii léegi ci lu matul waxtu mu teggi la mu waxoon sànni fële ba noppi nag di ko layal. maanaam mooy wax wëlbatiku waat weddi waat boppam lii nag jikkoy kuy lépp la maanaam koo xam ne dafay toog utilise xelam di créer ay scénario ci boppam te ci lii la Bassirou Gueye nekk. capitaine Touré moo leen wax ci seen télévision ni toog na ay kilifa jàpp bopp bi dafa xaw a waye di nee na ba ñu yónnee ko benn médecin capitaine Touré moom la gendarmerie radié ne amatul dignité pour nekk ci genre gendarmerie capitaine Touré moom ngeen di interroger seen tele yi parce que muy wax di wax sax mu ne tekk ngeen wax mu leen relancer leen ma maanaam li ma doon wax fàttali naa fàttali leen ma li ma doon wax mais ku mel noonu moom la Ousmane Sonko di jël comme preuve contre Serigne Bassirou Gueye bu def 24 ans c'est pas reconnaissance ça kooku nga jël pour témoin dafay oyof wutal beneen témoin fii Bassirou Gueye di tuumaal capitaine ne xel mi neexul dafa amee problème bu bopp ba joxe ci misaal ne li koy firndeel mooy capitaine Touré dañ koy laaj mu fàtte li nga xamante ni moom la war a tontu moom ci loolu sukkandiku ne dafay dëggal ni capitaine Touré xel mi neexul loolu nag day waxi caaxaan ndax capitaine Touré tam nañ ko bépp xeetu tam kon bu ñu demee ba xam ni gisatuñ luñ ko war a tuumaal amuñu preuve ci liñ ko dàqee. li leen dese mooy ni wérul àndul ak waaye lan mooy prouver que ci biir dossier bii bu amee kenn ku ci àndul ak sagoom mooy sëriñ Bassirou Gueye mii dañuy sukkandiku ci déclaration bi mu def démb ngeen gis ni bu amee kenn ku dof xel mi neexul ci mbir mi kenn la muy sëriñ Bassirou Gueye mii ngeen jàkkaar lool dafa ni enquête bi ñoom capitaine Touré defoon biir section de recherche nekkul ni Adji Sarr dong moo wax ay mbir yu di jiixi jaaxa nee na Ousmane Sonko ci PV d'audition yooyee jibal na fay kàddu wuute. mooy enquêteurs yi bi ñu enquêté ba pare déglu aji Sarr déglu nii war a déglu dafa am ay contradiction maanaam ayu yu féewaloo yoo xam ne jar naa xool ñu ne ko ah mu ne ah, mu ni benn ci côté Adji Sarr. am na ay contradiction ñett lañ mu ne ci côté Ousmane Sonko loolu Ousmane Sonko waxu leen ko xam naa pourquoi mu ne foofu moom am na juróom-benn maanaam am na aji Sarr am na ay contradiction moom la usman Sonko jàppee di daf koy setal nee na ñett la waaye yamul foofu nag ki bind loolu dani côté Ousmane Sonko tam waaye am na lu leen ci jaaxal mu ni juróom benn la fii Bassirou Gueye donte ne lawal ñi koy suivre la ci jublu woon waaye da ci nërmeelu te sax bàyyiwu ci xel fi Bassirou Gueye daanoo mooy en février 2021 bi ñuy déglu ñoom Adji saar Ndeye Khady Ndiaye et consort ca section de recherche boobu dégluwuñu woon Ousmane Sonko donte jébaloo nañ ko convocation mais mënul woon dem wuy ji ndax dafa amoon malaanu kiiraayu député moo tax ci dossier bii gendarmerie mosul déglu Ousmane Sonko léegi nag laaj bi ñu laaj mooy koo mësul déglu koo xam ne ci dossier bii mosul dëgg tànkam section de recherche naka la enquêteurs yi mënee bind ne ci côtéem gannaaw bañ ko taataanee wax na juróom bind mbir yoo xam ne dafa may contradiction dëppoowul te Ousmane Sonko gendarmerie mosu koo déglu moo tax Bassirou Gueye bi ko journaliste yi ne waa léegi liiral juróom benn wax yu waroo yi dugal Ousmane sonk ci enquête section de recherche dafa lank ne du ko wax. lii nga xam ne gendarme yi ñoom dañoo jàpp ne day dugal Ousmane Sonko mu yaakaar xarta xaritam boobu bindu ko ci muy capitaine Touré wala ki capitaine Touré jox bindu ko xaritam boobu moo ko bindal juróom benn yii te boo ko liiree bu baax ba génne ko ci Sénégal soo moytul li nga changé xarit waaye yor nga ko liir ko noonu non duma ko liir na leen ko Ousmane Sonko jox mais comme ñëw dama dama cohérent dama leen damay def tout pour expliquer rek mu leer mais nekkuma fi di chargé man ñii c'est pas problème. gannaaw gi nag Bassirou Gueye jugee ci terrain bi nga xam ni gàcce la ci nar jële dugg nag tàmbalee sol malaanu militant wu APR Benno Bokk Yaakaar fàtte ni ci casquette procureur bi mu newoon daaw lay waxee dossier boo xam ni da cee war tëddee ci njaaxanaay yi mu summi malaan boobu noonu présenté wu nag en tant que avocat wu Adji di attaqué sax enquêteuru section de recherche yi li nga xam ne ñoo ko bind. mu ni li Adji Sarr doon waajal di seet Ousmane Sonko subaak ngoon newul woon pour tëggal ko complot mais dafa doon wut ay preuve parce que message bi mu ne woon dañ ko ko yónnee pour ne ko Ousmane Sonko mi ngi ñëw da xam ne message boobu moo mën a leeral mbir yeeg yooyu. message boobu bi ñu ko laajee anamu dañ ni daf ni supprimer na ko Ousmane Sonko ne loolu daf may setal te dañ koo dindi ma jàpp ne man xalaatu enquêteur mënta setal kenn. capitaine bi def nii daf ni Sidi Mouhamed Mbaye nee na bi ko Adji Sarr ne Ousmane Sonko maanaam boobu ñuy wax ci affaire Ousmane Sonko daf ma violé violé moom nee na mu ne ko dangay xaar ba am ay preuve yu wóor. waaw ki xaaral ba am preuve yu wóor loolu day setal Ousmane Sonko ku ne xaaral ba am ay preuve yooyu xanaa kon dafa am loo yaakaar ne am na kon Sidi Mouhamed Mbaye setalu Sonko dafay wut kee pour mu wut preuve yi mais setalu ko nee na mu ne Sidi Mouhamed Mbaye xaar nag Ousmane Sonko ay yoon yoon woon fa bëggoon ko jàpp loolu de setal Ousmane Sonko. donc li ñu mën a tënk ci sorti Bassirou Gueye bii parce que wax nañ leen ni vidéo bu gàtt lay doon juste pour wàlle ni ko waa ji dafay tappale mooy ñoom comploteurs yi jàpp nañ li ñu jàpp ba noppi mooy Ousmane Sonko ci dossier bii du ci génne noonu donte ñoom bu ñuy wax xam nañ xel ni ci ay lañu nekk mais fas yéene wu ñu bàyyi ndax ku ci nekk liñ ciy liggéey moom la la Macky Sall di fay bés bu forcé ba jaay sénégalais doole ba toogaat fii la preuve complot bi ñi ci bokkoon ñëpp diggante 2021 jàpp 2023 ku ci yokkul ay gaat yóbbu nañ la ci ndombal tànk yi gën a neex pour lekk xaalis moo tax dossier bii li gars war a xam mooy du dossier juridique wàllum yoon mais dossier politique la ak jaayante sañ-sañ xam ngeen Bassirou Guèye mii boo sañee toog ci pénc mi gannaaw li mu def lépp di wax lu dul dëgg ci kanam waay njabootam te mu wóor ki kenn gëmu ko parce que dafa am lu ko jaral li ko jaral mooy nguur ak topp bànneexu bakkanam ni mu leen jaralee nag noonee la war a jaral itam ñi yaakaar seen leader te jàpp ni bu foloo du tas seen yaakaar jaral ko également ñi gëm ni ñëw jëfandikoo yoon di ko xeexee ay doomi aadama ci lu tegul ci dëgg message biñ koy jeexalee nag te daañ ko gën a yaatalaat ci yeneen vidéo mooy dossier bii du tribunal moo koy réglé ndax réew mi yoon amatu fi takku dog loi yi ay manifestation yeeg mobilisation yi taxaw temm mooy tax sénégalais yi am jàmm noppalu ci tappale yi. kon taxaw selu bi tey loolu woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf.